mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp kenn ku nekk ak santam Lamine baar Diop mais ñu gën maa xam ci Diop Taïf di nuyu mbooleem patriote bu ñuy seetaan waaye di tàmbali nuyoo bi askanu waa Taïf Mbàkke parce que mooy suñu fierté te moom la ñuy bëggee te ñoom ñoo waral lii kon suñu nuyu ñoom la njëkk nuyu di ñaanal kilifa dëkk bi sëriñ Abdourahmane Mbàkke Gaynde Fatma mu yàgg fi te ak mboolem njabootu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma gi di nuyu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed Serigne Moustapha niveau ji mu yàgg fi moom ak ay rakkam di nuyu aussi nag sëriñ Fallou Mbacke nga xam ne moom mooy jëwriñam te liggéey bi biñ koy def waxtaan suñu kilifa waxtaan nañ ak moom parce que dama jàppane képp kuy ndaw yi def politique ci dëkk bi rek lépp loo ci def rek war nga ko cee tàggu te am nañ ci ndigalam ñaanal nañu ne dinañ jàppale baatin dinañ jàppale zaahir kon suñu xel dal na ci bu baax a baax a baax yàlla def tey ñu njëkk a woote réunion Pastef fii ci Taïf depuis que président Ousmane Sonko mu seele mi dugg ci politique réunion Pastef mosut am ci Taïf Mbàkke tey ji yàlla def na ñu woote ko woote ko nag dina manière publique c'est-à-dire nëbbatuwuñ làqatuwuñ dañoo takkoon suñuy rajo sax di ko yéene ci dëkk bi parce bëgguñu boddi konte am ci. bëgguñu ñii ne dégguñu ba tax na biñ ñëwee woo nañ ay gor ay gor ñoo fi ñëw si ngoon ba léegi ñi ngi fi gis ngeen guddi na fal nañ fi bureau bureau provisoire c'est-à-dire bureau néggandiku moom nañ fi fal comme coordination bi ñu def ko Diop Taïf Lamine Bara Diop secrétaire général ñu def ko Cheikh fal étudiant mooy mooy président amical étudiant ressortissant de Taïf META trésorier bi ñu def ko Xaadim sekk moom Baye Ibra sekk adjoint bi di Dame Gueye président présidente femme mooy la gente féminine ki leen jiite di Jafe Diop adjoint bi di Wuri organisation di Cheikh Mbacke wilaya relation extérieure di Abolo communication di Moustapha Diop moom Baye Xawsu Diop jeunesse di Moustapha Fall ak Ahmed Lo ak euh, ak euh, Abdou ak euh, ak kii Thian ak Modou Thian ñii pour sant ñoom ñoo nekkum ci bureau bi fas yéene doxal liggéey bi fas yéene président Sonko mérite bi mu am mooy législative yi ñu gagné ko si jàmm salaam si càccoro dem assemblée ñu changé député yi indi fi indi fi député yi peuple bi bañ jëlee fi député yi Macky Sall jëlee fi député yi nga xam ne ñoo doole góor jigéen incha allah mooy suñu mëbët dañ ko def. kon loolu moo nekkoon mëbët bi tey jii di masaw nit ñi parce que guddi na depuis sa ngoon ñi ngi fi. waaye empêchement yi bari na parce que dañ fay wootoon ab liggéey ci dëkk bi waaye loolu lépp it nit ñi boole nañ loolu ñëw taxaw ñu di santit aussi sëñ Fallou duma sax di ko di ko sant du ma dàkk du ma du ma duma ma du ma du ma di ko sant parce que bi ma ko waxee rek yabal na fi Cheikh Kandji suñu nijaay Cheikh yi yabal na fi Moustapha jóob yabal na fi Baba jóob Dia ak Baye jóob ak yaa Awa yaa Awa Diop kon ñu ngi leen sant bu baax a baax nañ xam ne daal ndaw yi dëkk bi jóg nañ te dara mën leen téye li ñuy téye daal xam ngeen lan la mooy ku ñu woo ci defar tayif ci gën ñu bëgg nag tayif kooku daal moo ñu mën a arrêté ku ñu gën a bëgg tayif daal moo ñu mën a arrêté waaye guddi yi moom incha allah rabbi intérêt tayif la ñuy jël teg ko si kanam loolu moom nañ ko xam bu baax a baax a baax. wax ji nag defe naa ne mën nañ koo gàttal. Euh, Cheikh Mbacke wilaaya la wax ji nag defe naa ne mën nañ koo gàttal ndax defe naa ne ñi fi jaar ñëpp wax nañ li ci ëpp solo mais dañuy wax ne lii dafay yéex a am comme nuñ ko waxee woon muy waa Pastef dajaloo def réunion maanaam taxawal fi Ousmane Sonko dëgg la dëkk bi daanaka boo xoolee quatre-vingt-dix pour cent yëpp mën nga ne ay membre Pastef lañ waaye nag amuñ woon maanaam possibilité dajee mën a dajaloo def benn bolok di xàccandoo di dóorandoo kon loolu bu amee tey dañ ciy sant bu baax a baax di ci sant Bara bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla moom am na taxawaay bu rafet taxawaay bu am solo ndax kenn umpalewut ne yaa ngi koy gis fu ne muy xeex lépp di xeexal dëkkam tayif di xeexal réewam Sénégal comme ni ko Ousmane Sonko di defee te loolu defe naan dara ëpp ko solo ndax boroom xam-xam yi ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne xubbul watooni minal imaani bëgg sa réew ci gëm yàlla bokk kon lii muy def mën nañ ne jihaad la ndax daa bëgg réewam bëgg dëkkam moo waral muy jaayante di ci am ay gàllankoor di ci am lool lépp teewul heure boo ko gisee rek mi ngi gën a am passif di gën a am gëm-gëm di gën a am dogu gi kon loolu dañ ko ciy sant bu baax a baax a baax kon ñu fexe ba ñun ñi nga xam ne ñu it engagé wu nañ ñu am passeef boobu am dogu googu te xam ne Sonko fi mu jëm ak ñun mooy changé li nga xam ne moo fi nekkoon ndax am na ku ko fi wax noggatu gi day bëgg a yàgg ca jamonoy maam ba léegi te defe naa ne képp ku fi jaar daan xeex noggatu googu nga daan xeex suñ kilifa diine yeeg suñ mag ñi fi nekkoon daan xeex buur yeeg yooyu yëpp noggatu gi lañ daan xeex kon xeex gii ñuy xeex noggatu gi yàlla nañ suñu borom defal ndam yàlla nañ suñu borom gën a jàppale ba nga xam ne li nga xam ne Ousmane bëgg na ko ci réew mi ñi nga xam ne nekk nañ ci ginnaaw ànd ak moom bëgg ko ci réew mi suñu borom jàppandal ko ñu gagné législative yi 2024 ñu dugal Ousmane Sonko palais si kàttanu yàlla incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa seex kañ Kandji lañ koy wooye dëkk fii ci Taïf di responsable politique di ànd ak Serigne Fallou ànd bu yàgg te lépp di jàmm mu mel ni Serigne Bara ni ma ko waxoon sànq sama biir wax rek lii moom dañ la ci sant bu baax di la ci gërëm di la wax yit ni noo ngi sa ginnaaw ñun mag ñépp fas na yéene it jàppale la bu baax a baax ci lii nga nekk muy jàppale Ousmane Sonko ndax euh, niñ ko waxee sànq rek fi ne moom toll nañ foo xamante ni ci réew mii nu ne jàpp nañ ni jafe-jafe yi fi nekk ak noggutu yi nga xamante ne bii tubaab bi mi ngi koy noggutu nit ñi tam yàgg lool nag di suñuy maam ba nëgë ni jàpp nañ ni mennum Ousmane sonk rek moo ko fa war a mën a dindi ci niñ ko gisee ndax comme ni ma ko waxoon sànq rek niñ gisee programme am niñ gisee waxam niñ gisee fitam niñ gisee ngorom ndax ku ne xam ne nag usmaan sonk am na fu mu jaar avant muy génn nii jaar na ci barab boo xamante ne bii ñun ñëpp xam nañ ko muy impôt domaine muy barab boo xamante ne bii barab bu naqaree jaar mucc la waaye suñ borom dimbali la ko nag moom jaar na fa mucc yaakaar naa ne bi mu fa génnee bari na luñ ko doon bëgg a taqal àggoon nañu ak moom sax ci maanaam di wër lu am ba yàlla def ñu jot am Ousmane Sonko ñu bokk lépp bokk dëkk bokk lépp waaye nag yàlla daa def bokkuñu fu ñu fu ñu juddoo bokkuñu addit loola nag ba mu ca rëccee moom ba nëgë nii mënatuñoo xam ci moom lenn. kon loolu bokk na ci li ko may saas kon daal euh, li may wax mooy daanaka li ma bëgg na foofu rek mooy maanaam ñun ñëpp ñu xam ni njub nañ teg suñu tànk ci njub rawatina xale yi njub ak maanaam lépp looy def nga gëm ko te am te fit te ñime ko loolu mooy li nga xamante ni bi mooy aar nit Ousmane Sonko loolu bokk na ci li ko aar kon tey Serigne Bara boo wootee lu mel nii te it yow ñu xam la ci loolu faaw danañ ci ñëw danañ ci teew dañ ci am mbégte it bu baax a baax te dañ la ci jàppale incha allah comme ni ni ñu ko waxoon sànq rek ndax xam nañ ni dëkk bi rek moo la ñor te nu ni dëkk bi rek moo nu ñor ak ah, kon bu ñëwee di la ci jàppale lu war la lu jaadu la di la ñaanal rek bu baax a baax incha allah xam naa ñu yemale foofu kàddu yi rek. salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen fi nekk yéen ñëpp ah, man Moustapha la jiite wàllum communication Pastef bu Taïf waaw mu mel ni dañoo jël suñu engagement ndax ñun ndaxte Moustapha Diop jiite communication Pastef Taïf kon ñuy bëgg a xamal mbooloo mi rek ne ñun yaakaar naa mbiru politique li ñu ci daan séen sax bëriwut mais dañoo jël suñu engagement fas yéene koo def ngir Ousmane Sonko ndaxte yaakaar naa fi réew mi toll ci coono ak ci ay métti métti ak ay jafe-jafe kenn rek lan gis koo xamante ni war nañ cee mën a dimbali ci guddi yi ñu toll. muy Ousmane Sonko. ndaxte comme ni ko sama gaa yi waxee rek nooteel nga xam ne jamono yi ñoom maam la amoon ba léegi léegi loolu ñu bëgg ñu coo delloo loolu nag il faut ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Taïf loolu moom ñu taxaw ñun teel koo jëlee fii nga xamante ne mooy suñu gox bala ñu bala ndaxte olof dane bay ci sa weewu tànk ngay commencé kon nag ñun li ñu fas yéene mooy fas yéene koo bay fii ba pare doog a doo doo jublu ci leneen kon bis naka tey daal li ñuy xamal mbooloo mi ñun jël nañ suñu engagement ci Ousmane Sonko fas yéene koo jàppale élection législative yi nga xamante ne moom lañ jublu ñu fas yéene def ci suñu kemtalaay kattan ba nga xamante ne ndaxte cinq députés yi moom yaakaar naa gars yi sax nee nañ combat amul mais xam naa dañuy ñoom danañ jéem a combat ak mais digg département moom yaakaar naa combat amul. mais nag dañuy dañuy a kii ak ñoom rek mais dinañ leen yëkkati ba ca kaw moom ndax tey day gën a ñaaw day a ñaaw danañ leen yëkkati ba ca kaw dóor leen ci suufam jàll ci leneen. lu gën a defet bi gën a ñaaw la ñuy am ndaxte booy xool local yi amoon na ay amoon na ay bokk gis-gis amoon na mais ñun fii moom wax dëgg yàlla danañ leen yëkkati ba ca kaw dóor leen jàll ci leneen moom. ci muy cinq députés yi moom déjà moom def nañ ko suñu poche moom mu leer kon nag lii leen di xamal daal mooy bis euh, naka tey jël na suñu engagement ci euh, gannaaw Ousmane Sonko ak euh, Bari Diop mi nga xamante ne tamit nekk benn jeune boo xamante ni mi ngi ñu gën koo xam ci Diop Taïf. muy mi mi mi ngi bay waaram bu baax a baax baax ci nootal yi nga xamante ne amoon nañ ko kon nag euh, ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu falagum ma pour l' instant nii coordonnateur Pastef Taïf parce que su ma nee ñu falagum ma cest que ne suñu xoolee ku ñu gën a mën dañ la koy jox loolu moom lu lu wér la te ñu ñi ma ñi ma jiitali aussi incha allah bi duñ ma gën a gore euh, duñ ma gën a gore te duñ ma gën a bëgg Taïf. parce que ay gor ñoo fi nekk te gëm naa ni gënu mu ne sax bëgg Taïf wax dëgg yàlla euh, loolu daal moo waraloon euh, jataay bi wax nañ ko yaa ko déggandoo c'est la première fois réunion Pastef am Taïf te bépp lépp lu ci am rek seen taxawaay la parce que depuis presque at un an moodu yi waa Taïf yi góor jigéen mag ndaw ñu ngi may wax ne man installé Taïf Pastef installé Taïf Pastef Pastef um fi mais nag tey la ko yàlla dogal kon ba kon maa ngi sant bépp population Taïf maa ngi leen sant góor jigéen mag ndaw di sant kilifa yi encore une fois di sant aussi sëñ Cheikh Thioro le coordinateur passif du département de Mbacké plus précisément de la commune de Touba di sant Baye Djili Ibrahima Gueye ne leer sama sama papa ji du ko fàtte di ko sant. waaw incha euh, dañoo fas yéene dañoo fas yéene ànd ak sëñ Cheikh Thioro laa la wax dama ne damay fas yéene ànd ak sëñ Cheikh Thioro ànd ak sëñ Fallou yóbbu sëñ Cheikh Thioro Assemblée nationale lu wér laa lay wax ni dañoo fas yéene ànd ak Ousmane Sonko campagne ak sëñ Fallou laa de yóbbu sëñ Cheikh Thioro Assemblée nationale député yi nga xam ne ñoo fi doole góor jigéen député yi naan député Macky Sall dañu fi bëgg jëlee indi fi des dignes députés parce que luñ gëm la te tey incha allah dana bokk si ñuy pousse bërigo bi. nit ñi commencé nañ di décrypter message bi te damaa gëm ne partout où la main passe et repasse danañ ko def danañ dem fu ñu war a dem danañ dox lu ñu war a dox danañ wax lu ñu war a wax ba incha allah rabbi suñ jógee ci élection législative ñu ne département de Mbacké coalition Wallu gagné na ko département de Mbacké président Sonko gagné na ko département de Mbacké Serigne Cheikh Thioro mi ngi Assemblée nationale. loolu rek ci lañ nekk ci la ñuy xëy ci lañ gont ñu nekkul si ay détails. nekkul ci ay détails nee naa la dañuy jëf te jëf gi nag mooy lan mooy sëñ Cheikh Thioro ñun soxlañ ci moom un franc xam na ko ci man waa Pastef xam nañ ko ci man patriote xam nañ ko ci man man la doon a boobu président Sonko pour la patrie di wax mu nekk credo bépp patriote ci loolu lañ nekk. fii incha bi ni ñu defoon ci élection locale noonu la ñu fas yéene def dañuy def la don de soi tibb suñuy poos campagne ko te incha allah bi yàlla danañu may ndam ak jeunesse bii nekk suñu ginnaaw. incha allah rabbi lépp loo xam ne nii lépp loo xam ne nii war nañ ko defal président Sonko war nañ ko defal Serigne Cheikh Thioro danañ ko def incha allah maintenant nañ xam ne dina manière dina manière officielle lii mooy Pastef Taïf te képp ku dem ak foo mën di dem ne man maa taxawal Pastef Taïf maa fa nekk Ousmane Sonko maa fa nekk kii ki soit xam ne ne ab poosam képp moo ko yóbbu mais du intérêt Taïf intérêt boppam dong moo ko tax a jóg waaye Pastef Taïf moom ñi ngi incha allah rabbi danañ ko doxee danañ ko waxee di jaajëfal ñëpp. di jaajëf askan Taif yëpp.